samay spécimen déedéet man indiwuma spécimen ah, bon non xam xaaral déedéet grand bi duñ ko tendance grand bi dama koy tendance tey Cheikh maa ngi lay nuyu euh, di nuyu Jalima mi ñu fekk ak Biram di am mbégte lool nag ci ñëw di di am mbégte lool ci ñëw fi jàpp naa ne boo ma fi gisee aussi warulaa bett ndax danga ma defal teraanga bu mel ni da nga ànd ak sa délégation di proximité ñëw ba sama kër ànd ak ñoom biraa te ñëw wax fa wax yu rafet mais wax bi ma gën a neex ca wax ja mooy danga ne paar bi ñun ñëpp a ko bokk ah, kon barkeem foog ñun ñëpp ñu bokk ci loolu teraanga cër la kon man ma nangu ñëw ba ci biir koñ bi te du ma ñëw aussi. ba fi nga ne rendre la seen politesse la loolu rek moo ñu indi donc leneen ci des moom foog naa na boo waxee rek ñu dem duñ fi joxe spécimen duñ fi joxe leneen que ñun ñoo bokk mbir mi ñëpp frère ak sœur ah, maa ngi lay sant di la gërëm ci defal yéen tamit du ma ci <laughs> amul si gisaaka comme j'ai dit euh, SICAP moom li ma ciy dox moom toujours rek exemple bii la ñu xam ñun lii lañu mës a dundee nii lañu mës a doxee moo tax fan yële maa ngi wax bi ma gisee affaire yi xaw a jaxasoo moom tuddi violence ma ne xam naa ne peut-être romb la waaye baaxoo wuñ honnêtement j'étais très surpris ma ne peut-être incident de parcours amati ci kàddu donc wax ji du gudd keroog tasanaak Tamsir Soxna ñu wàcc saafonte tey yàng ngi nii toog maa nii suba keneen damay romb ñu toog ñu saafonte bu ñu paree ñu àndaat ay doomi si daf balaa muy a neex élection bi paas voilà mu jeex nag voilà voilà bon voilà on fera ça autre chose waaw vraiment daal sama waxu démb mooy sama waxu tey man daal jàmm la sama waxu comme j'ai dit ay frères et sœurs donc camp bu ci nekk kii bu ñu tojee boppam fu ma jëm hmm. Hmm? lii bu ñu tojee boppam fu mu jëm bu ñu tojee sama bopp. Ah, non dañuy waxtaan rek non xam nga lu tax xam nga lu tax ma wax loolu kii ndey la ci man xam nga yow suma sœur nga. mais kii suma ndey la ah <laughs> xam nga boobu moo gën a garaaw donc looloo ci garaaw donc kii euh, euh, kii suma frère la donc bu wooyee un peu. nee naa loolu laa wax xale yi keroog bi ma dajeeg ñoom rek jox. man leen camp bële ku fa gaañu man dinaa ko seeti. Mhm. donc billaahi wa rasul saxal jàmm ci mbokk loolu rek la fi xaj vraiment ma leen sant encore di leen gërëm euh, di ñaan yàlla daal yàlla defal jàmm ñun li ñuy ñaan mooy li may wax toujours les gens sont ñuy bëgg a defar les adversaires mënuma jox suma bopp bonne foi et les autres sont de mauvaise foi